jamono ji nga xam ne réew mi jaxasoo na ci wàllu ko politique ak mbënd mi parti bii di PASTEF seen banqaas bi nekkee ci Touba am daje la ñu doon amal ci Touba Ndamaatu ngir dajeek seen ñooñ ñile ngir gën leen a ñaax ci tolluwaayu parti bi waaye liggéey bi nga xam ne Ousmane Sonko jamono ji mi ngi koy amal ci réew mi le mi la ndaje nag ñi ngi ko doon amal ci teewaayu seen coordonnateur bii di Serigne Cheikh Thioro Mbacké Mame Dame Lo mi yoroon kàddu bés bi tamit commission électorale jiite banqaas PASTEF bi nekkee ci marché Ocass yëkkati kàddu jëmale ko ca googalek fànn tey Sénégal dafa toll foo xam ne il faut ñuy daje di waxtaan ndax réew boo ko bëggee defar faw ngay daje di waxtaan rawatina nag fii ci Touba ndax xam nga ngeen Touba politique bi fi amoon démb ak bi ñu fi installé ñun waa Pastef bokkuñu ñun dañu ñëw fii pour waxtaan ak nit ñi moo tax ñuy def yu mel nii ci njiitul ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Thioro Mbacké suñu coordonnateur ñu koy remercier bu baax ndax gis nañu ni mu taxawee ci parti bi ndaje yu mel nii nag mënut a parce que nit bu xamul li nga bëgg du la mën a jàppale. léegi nag ñun moo tax ñuy dajeeleel jigéen ñi di waxtaan ak ñoom et di leen wax lan mooy programme Ousmane ak Ousmane fan la bëgg a yóbbu fi nga xam ne mooy Sénégal. ndaj yu mel noonu nag bëri na luñ koy amal ngir dajeeg ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di militants yi ngir gën leen a ñaax mu mel ni nag tax na du di xam ne ne parti bii di Pastef ci Touba jamono ji am na ndëgër laay gu am solo ba tax na ay élection bu ñu ci demoon wóolu nañ ci seen bopp. Pastef Touba amul woon cellule yi ñu samp lañ ko amee Gédé am ko Guy Mbind am ko Daaru Xudóos am ko fépp ci Touba kon donc parti bi mi ngi fiy dox parti bi Touba mi ngi ci loxoy Pastef fi mu ne man maa la wax loolu bu ñu demoon élection suba nga xam ne Touba 80 pour cent dañ koy voté dañ koy gagné. bu dee lu soxal jafe-jafe yi nga xam ne rek askan wi nekkee ci dëkk bu seetlu bii di Touba moom la ñuy jànkonteel ci kii nañ seen kàddu daal di jëmale loole nag ñuy joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne moo jiite bokk memeel gu Touba. combat yi fi mane leer na ñëpp ne kenn mësu ko fi ma ñun rek ñoo fiy xool li nga xam ne intérêt Touba la doxul ñu koy dénoncé barki démb ci mujj sëñ Cheikh mi ngi dénoncé li xew ci dëkk bi lu ci mel ni euh, la mairie di Touba loolu day leer lu ci mel ni mairie bi di di remercier ñiy liggéey muy Touba ca kanam sëñ Cheikh du jóg ci di leen remercier parce que fii kenn moomuñu ginaaru kenn nenuñu mais ki fi liggéey ñu sant la ko deful dara ñu ne defoo dara. mbënd mu mee ak programme bu am solo bi nga xam ne jot na ko tëral moom Ousmane Sonko ñu xam ne nag jamono ji li ñu tuddee ay vacances agricoles loolee amal na solo lool réewum Sénégal ci ndaje mi la nag ci la ñu porox ndollu daal di indi kàddu yu tontu ci song yi nga xam ne ñi ngi koy song seen njiit di Ousmane Sonko. vacances citoyennes ñuy taxawaalu ànd ak ba ko Mame Mbaye Niang yoree ba léegi dañuy taxawaalu hôtel bu fanaan suba fanaan ba ca des ba mu jeex ñu dem ñibbi Ousmane xam ne loolu amul njëriñ mu ne dama woote vacances agricoles donc ñun la ñu bay sa tool rek moom sax dañoo war a sant parce que autosuffisance alimentaire la doon wax donc ñu ngi ko ciy jàppale kooku mun buñ ci sant duñ la faale ndax bay nañ fa lu ne ah bay ko Casamance Sénégal ren ceeb du fi manqué de lu leer laa la vacances agricoles yi dafa riis de man nag sama toolu xaala ngi fii ñi koy song ñoo xam nañ leen mooy borom laaj mi ñu rëy woowu avocat boobu te kooku dekk na fi depuis depuis kañ la fi nekkoon mi depuis mi mu fi xeexal ñoom CNTS FCS fii syndicat ñoom Cheikh Diop 2000 la fi newoon di rey boppam mënta am xoola bureau bi mu voté kenn la am ba mu jóg di xuloo naan man sama jabar sax fa la kon war na am ñaar mais kooku sénégalais yi gëmuñu ko xam nañ ko kooku iñaan gi mu iñaan mayu ma yeggale foofu parce que iñaan gi mu iñaan xam nga lu ko waral mooy Ousmane mënu fit ñëw am 3 ans 4 ans parti bi ñëw voté am am 15 pour cent 15 pour cent tey boo ko xooloon ñaata million et quelques voix donc kooku bu tey législative plus forest la ñu fale woon lay tey kooku bu doon législatif xeetu ndaje yi la nag Pastef bu Touba bari na lu mu koy amal ne nag dinañu ko gën a lawal bu ko defee ngir gën a jege ñooy militant yi bokk ci Pastef. Sonko nag ca kaw ca kanam ci barke Seydina Mohamed.